بسم الله الرحمن الرحيم بركب شيخ عبد الله يا خير منسل وقاب عصبلة وخير منسل حباب بسملة سل بتسليم على من فاق في قلقه وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما بك استعاذ من سيطاني ونور القلوب كالأوتاني وفيه باركت وفي الصحابة وآله ومطر الصحابة دم النزام إلى صحي صحاب حدا ولا تردنه يا مصيب الخلل سواك لم أرجو في سر وفي علن بحق وجهك حق خل الرجاء أنا لي يا رب كن لي وخذ لي برضا خرضي ومن تمس بجاه المنتقى أنلي صلي وسلم على المختار في الكرماء وبصرن بنسمي أفضل رسولي بارك في عبد الهاد مبكي جلي في فيتاو ييب مبكي طالبي نيغي لين دي نيو باخ دي لين سيار دي جيتال سي نيو كليفا جتاي بي اك مبولم كليفي فيتاو ييب njabootu Sëñ Tuubaa gi di jox seen wàccuwaay ñi fi teew ba dem ak ñi fi nekkandee ku si ñëw ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar di nuyu kilifa yi murid yépp Cheikh sidi Muxtaar di ko ñaanal suñu borom mu yàggal ko fi yàggal fi dongay Sëñ Tuubaa yépp ba liñ yéene liggéey Sëriñ Tuubaa lépp ñu def kon nañ ko bëggee di foog nuyoo yëpp nag ak siyaar yëpp teg ko ci loxol sëriñ Ahmadou Mbàkke mii toog nga xam ne ñoo ànd ñëw fi muy sëriñ Ahmadou Mbàkke moom sëriñ Fadilu moom Cheikh bi ñu gën koo xam ci sëriñ Ahmadou Mbàkke kennal sëriñ Touba. muy suñu xarit di suñu wala di suñu lepp moom ñu ci wet yépp itam mu ñu ànd ak ñun jataay bii te ñàkk jot lool waaye nag Sëñ Tuubaa moom fuñ koy wootee rek moom donte foog fekk ci Sëñ Tuubaa la nekkit bu dee fuñ mën a dem la mu wax baag ànd ak Sëñ Mor Sorong ñu koy wax kennal Mor Sorong kennal Sëñ Tuubaa moom it kon ñu ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu ñëw ak suñu amadou Mbacke moom bu baax ngir ni ma demee ak moom ak liñ seq ak suñ Tuubaa ji muy dund moo fi indi ne sax yaakaar naa ñimmiñ ci jataay bi bëriwul waaye yu suñ la boo xam ne sama jëmm ji rek maanaam moo ko fi indi ñu ngi ko ci sant bu baax di ci sago bu baax itam sëriñ Njega Diop yow mi nga xam ne yaa jiite kuréel gi sëñ Ngañ Diop ñu ngi koy nuyu bu baax di ko jaarale ci sëñ Mbàkke Mbegere mi nga xam ne ci suñuy ñëw fii ci moom la jaare ak mbokk taalibe yi fi teew yépp bu ñu nuyoo kuréelu nooru daare ni bi rek nuyuwaale lañ mboolem kuréel yépp di rafet lu baax njàng mi fi jaar léegi kuréel yi ak ñi doon rajas ma am ci nag sama gars yi bopp ñu di leen wax tasawudu subaan safinatul aman daire safinatul aman bi don jangale ak mawahib bi njàng mi am solo lol ta tagi ci aw yoon ñu leen ni ñaanal suñu borom dafa len tawfiq ak mboolem jankati fi teew yëpp di nuyu soxna yi bax itam di ñaan ci barke Sëñ Tuubaa jotaay bi yalla na bok ci jotaay yi Sëñ Tuubaa gëna a yalla yàlla nañ fi jëlé fajuk aajo ak ngeerum Sëñ Tuubaa ndax mom rek lañ ci sàkk mu mel na nag li ñu wax ñu tënku ci waxtaan ci waxtaan wi euh, dañ koy tënk rek lu ci nekk ñu cof ca lañ ca cof waaye gëm ne dana xaj ci waxtu wi ndax yi ñu wax ñu waxtaane ko yépp bu ci nekk rek xajut ci ak guddi wala ñaari guddi muy waxtaan ci Sëñ Tuubaa waxtaane Sëñ Tuubaa ak waxtaan ci xasida yi waaye li ci gën a ëpp solo nag mooy ñun suñu bopp suñu digganteek Sëñ Tuubaa ñun murid yi gëm Sëñ Tuubaa te yaakaar ko suñu digganteeg moom ak actualité bii ñuy dund ñun ci Sëñ Tuubaa ndax noonu la wala déet nii ñuy dundee Sëñ Tuubaa ñun ndax noonu la wala déet bu dee li jëm ci Sëñ Tuubaa ñun fekk wuñ sëñ bi jëmmul nag xëy na ñu gis ku gisoon sëñ bi mbaa ñu gis ku gis ku gisoon sëñ bi te taxoo woon ak moom sëñ ba daan ko wax muy bind wala muy dégg te yooyu lañuy ñuy jël ak kus néew li ñu yër a néew xaside yi ñun ñëpp ko bokk kenn ku nekk gis nga say wa nga ca jël ak sas wa nga ca sasoo féetewoo ko su ko defee moom it nii ñu koy jànge ak ni ñu koy dundee danañ ci xool waxtaan ci suñ biir ba xam maanaam yoonu murit nan lañ ko war a dunde ak niñ koy dunde ndax noonu la ak xasida yi itam ndax day ku mu neex rek nga dunde ko noo ko yége ak ndax yoonu murit yi yëg-yëg lañ ciy doxee wala déet loolu it lu mat a bàyyi xel la suñ diggante te yaakaar naa sax loolu moo ci ëpp solo ndax Sëñ Tuubaa moom bu fekkente ne dañuy waxtaan nii kenn mënut a waxtaan ci Sëñ Tuubaa waxtaan waa jaar yoon te tegoo ko ci amul moroom rek waxtaan Sëñ Tuubaa yëpp boo ko boo ko tënkee mooy amul morom fa ngay daanu ji amul morom léegi nag fam jaar ak lam doon def la taxoon mu fay jaar jàpp naa ne mooy liggéey bi waaye Sëñ Tuubaa jaar na jeewal jaar na maa yomba jaar na nangam ñu wadd ci suuf baax na lool waaye nag léeg-léeg ci li taxoon mu fay jaar ak kan moo taxoon mu di fa jaar ak ñun ba mu fa jaaree ba noppi lum ñu jural. ak nañ ba ñu ko sàmmaloo nan la ñu ko war a sàmmee li ci luñ ca yitte ji ñu ci war a def ak moom nu ñu ko war a jàpp yaakaar naa loolu moo gën a nekk liggéey bi bu dee jëmmi Sëñ Tuubaa moom euh, dañ koy wax lim ne moom la am sut jaxate bu tuddee am sut jaxate ñu tudd ko fañ ko war a tudde mu xëy ñu koy woowee na neen te bëggul ko ko woowee noona te newut noonu laa tudd su boobaa nag jar na mu taxaw ne tudd ma noonu suñ Tuubaa li mu wax ni moom la moom lañ ko moom lañ ko war a wax woowe mu wax ne moom nu mu tudd mooy Abdullahi wa xadimi rasulihi moom moom la tudd nen te loolu tudd ko dong yem ci waaye jëf jëf a tax mu tudd ko dafa jëf moo tax mu tudd Abdullahi wax xadimi rasulihi ndax xam ne ne duñ dugg ci sax di leen leeral lan mooy Abdullahi wa xadimi rasulihi ak. fan la toll ci yàlla abdullahi xam ngeen ne martaba bi gën a màgg ci martaba yàlla yi mooy nekk xaabit loolu bu ñu doon wax ci xaside yi dañuy xam ne kon xaside yi kon moo gën a gaaw ci yóbbu nit ca yàlla lu dul moom ndax bi muy jëfandikoo ne ko sax ci sama xaside yi da am nangam bi muy jëfandikoo baat boobu xaabit la wax xaabidan xaabidan kon xaabit boobu moom la Sëñ Tuubaa tudd mooy abdullahi wa xadim rasulihi Sëñ Tuubaa nag Euh, jaayante gi mu jaayante woon dem ci géej gi ak liggéey bi mu doon liggéey lenn lu ca nekk daf caa am la mu bëggoon ba noppi moom bi mu demee ci géej gi ne la ma wuti woon ci géej gi am naa ko moom loolu moom amut li mu ciy wax ñaat ñaat naatable la la nga xam ne it ginnaaw géej gi moom la moom la am loola it kenn nattabliwu ko li mu wax ne it moom la bind ne moom la am itam ci biir mbind mi loolu it kenn naatablu ko lu ci nekk moo koy bindal boppam am na fu mu wax naan moom kenn kenn kenn kenn kenn mottali lu ko dara Sëñ Tuubaa amul kenn ku ko mottalil dara nga xam ne Sëñ Tuubaa moo am moo am loolu mooy budul woon ak man a Sëñ Tuubaa du def nangam Sëñ Tuubaa amul loolu amul ku naan budul woon ak man a Sëñ Tuubaa nangam du ko man wala nàngam du ko mën a def amut kenn amut ko kenn mënta taxaw ne bu bu mu du won ak man nangam nu ko am wala ci bu ne bu du won ak diwa duma am nangam mbola bok bu ko waxe waxil la waye mom leppam dafa mat ci lepp mu xol ñepp manke ku mat mu motali la ku mat mo la motali waye amul ko ku koy ci bu du won ak man do am nangam amul ndax amna fu mu wax naan muradiya khat kamalta fil bahri sakiran xam muradi ya muradiya kamal ta fil bahri sakiran la kon loolu fukul li bi jahil mustafa an nuuri nawira loolu suñ tubaab mako wax kon mom leppam mat na mom ci geejgi amul lu mu matti fajuna bu moom day fajaate ay ajo waaye ajo moom amul kenn ku ne buri woon a suñ tubaa aajo sàngam suñ tubaa du ko am ndax nee na loxoo xitaabi wahaaji kullaha qudiyat bi saadati ahli badrin mushiril madadi kon kooku amul kenn ku ku taxaw ci diggante mag moom bu dee faj aajo nii sax àgg na ci moom suñ tubaa nee na fajuma aajo kenn si am sut jaxat la ko waxoon ne ko am sutu mbaa xam nga ne fajuma aajo yi kenn si am sut ne dal fi suuf ngir loolu bu fajut aajo fuñ jëm mu ne ko am sutu jëmmi aajo ci boppam moo toog ci sama wet di diglu ndigal ni ngeen di diglu ndigal ku ci am aajo aajo moomu mooy jàkkaarloo yow dab la gàttalul la faj sa aajo ñëwaat toog di diglu sama ndigal waaye kenn jërul lu ma ci yéen jóg kenn ku ma jëral jóg ci yéen amul kon sëñ bi euh, ay ay faj aajo ñaan mu am ak euh, bëgg dara am ko nangam yooyu sëñ Tuubaa romb na yooyu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kemt laa yoon la yàlla bëgg ku ko na bëggale ak ku ko liggéeyee sëñ Tuubaa doon ko def kon ñun tut tànk yi di ay murit dama ne dafa mel ne booy xool ci genn wet am na fuñ fuñ nuróoleeg sëñ Tuubaa kon buñ góorgóorlu mën nañoo am lu ëpp la mag ñi amoon mooy lan mag ñi fi nekkoon ñu leen di woowee mag ñi mooy ñi fekke woon sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa naan dama ne ñu naan haa buñ naree jàdd sëñ beneen du noonu ñu wat ñun gisuñu suñ tubaa ci ay bëtt ñi ci gis ñu gis suñ tubaa sax bari wu te teewul ñu bëgg ko ci suñu xol diko ko ci suñu cër kon buñ ci dolli won diko gis ci kam la te tolo tolo le ko bëgg gi ñu ko bëgg kon fu mag ñi ag mën nañ faa war na wax ndax suñ tubaa kat yalla da ko joxoñ rek mu dem di wër yalla di wër yalla di wër yalla di wër yalla fu ne mu lamb ko fa xam ngeen ne bi mu doog a tàmbali bi ma Mor Anta Sali demee ba ci déwén sa bu mosaan a génn ci biti di wër yàlla yàlla jaraloon na ko loo xam ne àgg na ci xetuk yàlla di ko xeeñ mu koy fufutandiku mu koy xeeñ waaye xamul fu mu nekk muy wër nag boobu mag daan lokkat li ñuy wax lokkat mooy taal ay sebbu ci àll bi ngir di lakk ay dugub lakk ay sebbu Sëñ Tuubaa daana ci kaw sebbu te ko yëg ngir suñ borom ngi koy fu mu ne mu koy wër loolu mooy wala si na jaaxaadu fii naa lanahdiyannahum subulana nu ko sëñ bi daan firee booy wër yàlla ci lu ne ci ku ne ci fu ne ci lu ne tëtaa bàyyi soo yuqutul lanahdiyannahum subulana yàlla mooy jàpp ci sa loxo ne la kaay maa ngi nii xetuk boo ko doon xeeñ nag mu koy xont ko ci wet gu nekk fu ko fay foofu tundu nag booba gisagul boromam kon ci la ko borom mujj mu jàkkaarloo suñu borom ba suñu borom maanaam daal koy joxoñ yonente bi sallallahu alayhi kon moom xam nañoo yem ak moom foofu ñun fekk ñu fi Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa fekk fi yonent bi waaye lan daa taxaw daan bu dee ci suuf si la doon taxaw asamaan si moo ko doon tiim sama pas-pas may na ma ma liggéey ci moom ba am la ma bëgg waaye liggéey boobee day confirmé na ko ndax mujj na di liggéey di liggéey di liggéey ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko léegi ku am lu mu bëggati ci man bu ko jaarut ci yow du sotti moo taxoon benn bés ak bëccëg mu taxaw ci kanam si ñoom sut jaxat ne ko am sut mu ne ko mbàkke mu ne ko mbaa xam nga ne jaamu yàlla gu mën a pat suñ borom dafay kooku sëñ bi coolee fi nekk rek ñu nekk fii di ratatate ak lu ne ñu dugg ca facebook yeeg whatsapp yeeg ku ne naan sama waaye kenn kenn ku nekk nangam waaye ba wax ba jëf jotee ka jëfoon ñam jamono leen toon xam na ne mënoo mënti wut ak ñoom suñ tubaab mënoo mënti mënoo mënti wut ak ku yàlla bind nañu bàyyi suñ sedd gii ak complexe yi ñuy dox dañu wara fexé ba ñun ñi jima mat li ñu doon dañu wara fexé ba jima mat lañu doon moy lan señ Tuubaa mom ku koy yarit na ko si mun taxaa waxe woon malaayika ko ab yonent yëbu ko te mas wax ñun li ñu war a fexe mooy ba ba ba ba ba señ Tuubaa nangul ni waye am maa jëmmi mer ci ku ku naan señ Tuubaa du ko kaalaak loolu mu jur di jënt ndax masna wax señ sut jaxat ne ko am sut mu ne ko mbàkke mu ne ko ku ne mu wut jàmbaar laa bu mu leen metti ndax yàlla mu bind jaam ñi ne ahmadu ma wuyu ko mu ne ma yaay jàmbaar te ne na ci bésu màggalu Tuubaa la ko wax tey sëñ may jaxate xuloo loolu nañu bu yàgg ne woon nag ku fas ña bàmba sa maasum bàyyee dëgg jógal ànd ak sa jëmmu ji dem làmbar na del suñu gis teyit nag gàññ yàlla mi tegoon suñ Tuubaa natt bi yalla mom yakar nak lune man nañ ko wedd bam dess na yalla nekkut fi yalla mom mi ngi fi ba tey loolu yaakaar naa d'accord nañ ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mi signé won contrat bi yaronte bi mom xana ko gisut waye ñi koy gis nga ko gis batay lol mom lol loolu it lu leer tuba bi yëpp won suñ tuba ci geej gi tubaab yi leen gëna bona fi nek fi tuba mu tubaab moromandiwut ak kenn lim defal yalla kenn defal ko ko lim defal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kenn defal ko ndax ko dem baagi ci yonent bi naa ko yubajjilu kulli kullakal yawma mahqadin wa insha rabbi la urad dahra sawani kenn waxu ko ku dul suñu waa liggéeyam boobu nag mu liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba agsi fi mu am ci lim ci am ñun ñëpp di ay murit dañ ko war a jëmmal te bàyyi ko xel maasee di ko dund wax naa ko barki dem rek léeg-léeg nga dégg ñaan dañoo wax suñ Tuubaa barab sàngam nangam nañ ko wax fee sëñ bu buñ koy wax dara ñun ñoo tax ñu di ko ko wax ñun murid yi ñoo tax ñuy wax suñ tubaa loola ndax sëñ tubaa dafa weex tal ba noppi ñu bëgg a wert mbaa ñu ñuul ba bëgg a ànd ak moom mun ta sotti te li ma doon wax léegi léeg murid gi moom kenn léegi amatul règlement kenn ku nekk ni nga ko yëge da nga gis kenn sax mu ne la man sëñ bi ci yëg yëg lay dox man ci yëg yëg lay dox ak noo noo déggee noo déggee nangam ak bëy sàngam noo ko déggee ni ko sëñ bi wax rek mooy noonu mu yoonu murit amut nii laa ko dégg ak nii laa ko gisee ak nii laa koy defee amut noonu ni ko sëñ bi wax rek la amut leneen amut lu ñuy bind ka maas ka yokk ka wàññi amut ci mi ngi mel ne laa ilaha illallah muhammadun rasulullah boo ci dugalee tomb ñu ne la génneel bokku ci boo ca yokkee waaw ñu la bokku ci murit gi amut nuñ koy gisee nuñ ko war a gisee niñ ko gisee ni ni ko sëñ bi waxee rek la amul waye kenn ku nek legi sa muritu bop nga bo xamne yow ni ngay dund sa murit yow kep la man ni mi dundé murit gi du bokkut ak ni ko kii di dundé bokkut ak ni ko di dundé ta murit gi di genn amna ko amna ko wacc ku yoon de amna ko wacc yoon te li gëna a ci ñun moy kenn ku nek ci ñun nga japp ne ag nga fa nga jëm te jógagoo fi nga taxaw gaa kalau wu nañ bu yagga yagga yagga yagga waaw di xaar nak señ bi jox leen ndax lan dañu dem xel am ñetti yoon wala señ lañ ma sa gis mu leen nangam nangam duma siar siyaare benn man señ adalah la gënt bi na attention nga gënt ko sol lu weex xamoo tuba am de Iblis bu ko señ tuba ba mu feeñu sëñ Tuubaa ci tundu jeewal lu weex la solon de tay ñun dafa am lu ñu wara doy sekk ak tuba mooy lan jéem a xencu fa ñu suñ tubaa wax ñu teg fa suñu tànk ñu teg fa suñu tànk ndax suñ tubaa liggéeyam bii du ay caaxaan da cee son lool lool lool lool lool tey am na bis mu wax si musul jaxat ne ko sama coono bépp de yéen a taxoon coonaam bépp moo ñoo taxoon waaye nee na ba muy dem njëkk muy dem amoon na li mu bëgg ba noppi waaye nag ñun ñoo taxoon muy dem dal ne ko am sut na góor góorgóorlu bu baax kon Sëñ Tuubaa moom du gone gu ñu tëkkalee kenn walla ñuy wax ak yooyu yëpp amu solo li am solo mooy mbind maa ngi nii tege am na xeeti responsabilité yi moo xam ne kenn ñemewu ko wax ku dul sëñ bi nii gars yi dañ koy romb di jàll nii waaye ah bëptu ku ko ñemee wax loolu loolu fi dañ koy romb di jàll waaye loolu fi ni responsabilité la ko madatu ak malaka nii naajeytuhu yan xaadu lii akramtanii faraxtanii kenn ñi mu ko wax ko du sëñ bi xasida goo ko gis rek waatal na sëñ Tuubaa ko def waaw yaa rabbi inni asaluka an yata nangam rek ngay dégg waaye defal ma nangam def nga ko sax may ma nangam may nga ma ko sax soo déggee nag ñu am sut jaxate am sut jaxate li mu wax moom daa xaw a ëpp lool xanaa kon sëñ Tuubaa wax lu ëpp moom mbaa mu def lu ëpp kon ila yaqaada lahu ma lam yakun ni lu ko gën kenn da koo mën a weesu yàlla jox na ma nangam te bi ma koy joxit nee na ma ñi ma jiitu woon joxu leen ko te neen du leen ko jox ñi ma jamonoon te joxu leen ko te neen du leen ko jox ñi war a ñëw ëllëg it joxu ko te neen du leen ko jox ba noppi teg ca lastu asukku abadan fii kaw nii la ci sax lastu asukku abadan fii kaw nii jaaral ba di waaye coono boo yaakaar ni nit mënu koo daj rek suñ tubaab daj na coono boobu lu ne teg nañ ko ko. waaye jom ak fulla aku fit kuñ ko wax dañ ko dañ la koo jiñ waaye suñ tubaa rek ko am te mu yenn liggéeyam bi ci ñun fukki ci la toll ñeent fukki ci la toll te ba ko yonent bi saa salaam ne ko lii attanoo ko boo nee mu ne ko waxal sa borom nee ko ruugi la sa kut te xamul lu mu attan waaye bu fekkente ne tegee na ruugi sama jom attan na ko foo bëgg liggéey bi mu yóbbu ma yóbbu bañ ko ne tass yóbbu sëñ Modou Moustapha ak Cheikh Mamadou Fadal ak man ña fa nekkoon nee nañ keroog lañ xam ne Touba mii kat wuute nak ñaneen ndax bobu buri yi kuñ ci massa yoni wala ñu wola wala nga jëm barap kep ñaan go xam dang ko ñaan lu xam dang ko songo lo xam dang ko tak doga sak defi sarax ñaan lu doga dem waye sëñ Touba kérok bimu tege tankam ci tegu fasuy bimu teki mu tankam tegu fas yi bi mu gestoo daal fab loxoom teg ko ci lu bop sëñ Modou Moustapha ñaan tek ci bop Fallu ñaan ba nopi bim ne tegg ci ko fas ba yegg ba nopi mbolo ma ngi bari lol mom muy kenn ndaysan jëm ji tuti lol ci gisin waye ne le la fitu fitu magna le rite seni deun moy seigne touba day len da leen dana na len talal len ma ñaanal len te moy dem ta kenn la ñoo ñuy mu ne len talal len ma ñaanal len loolu lu sew la loo xam ne dañ koy romb te fit woowu bàyyiwu ko fit woowu bàyyiwu ko su tubaab bi li mu doon wax la suñ tubaab weesuwul ñu ànd ci ay droit am lu si lu tubaab bi wax suñ tubaab ne ko waaw suñ tubaab taxaw ne ko loo wax ma ne déet weesuwul waxal liñ la wax loo mu ne li may wax mooy allahu rabbi wala usriku bi weesul foofu wax na li yi wax mu ne allahu rabbi wala usriku bi wax yóbbu biro ndar bu waxoon la gaa yi wax ñu bàyyee ko nañ bàyyee gaa yi loolu moom yaakaar naa kenn natta dugg bu gaa yi waxoon la sëñ bi waxit ñu yóbbu gaa yi ni ñu yóbboo sëñ bi kon ñi naan ñoo bokk lu ñu fa wax ak ñoo bokk lu ñu maslaa dañuy wax rek bokkuñu lu ñu wax sëñ Tuubaa moom la mu wax man teg naa ci sa bët gis naa ko ñi naan ak xasida la fa bind ñi naan nangam déedéet سن جوبا لام فبن موي رديت بالله ربا وبالاسلام دينا وبالقران دليلا وبسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا واماما بن تيوت قل هو الله احد الله صمت لم يلد ولم يلد ولم يكن له كفوا احد بن ولا ولا ما نقول وكيل بكو بنكو في رجع تباب دا تيت Juk daal di bind décret war na ne dañoo def war a def assemblée générale fas yéene koo rey mbaa ñu génn ko mbaa ñu tëj ko aaya ba dikkaloo yonent bi saa dikkalaat ko way seem kuru bi kala sina kafaru liis bi tooka aw yaq suloo ko aw yaqru jooko wayem kuroon wayem kur la wala xayrul maakiriina waaye suñ tubaa dina siim sut jaxati te bët bu rëy ba da ko ne suñ ma génnee lu may am ñu won ko ko ñu ne buñ mu ne mu ne buñ ma rayee lu may am ñu won ko ko mu ne buñ ma tëjee lu may am ñu won ko ko mu ne génn gi ma gënal ndax bi mu ta bi mu xoolee génn gi lim si amee amewu ko ci buñ ko rayee ak buñ ko tëjee motax tax ña woote woon ne dañ koy génné ñooñu ñoo gañé ñu woté né buñ ko génné keroog bañ koy jëlé ndar sardé ndase lañ ko yobbu bañ koy jëlé sardé ndase diko yobbu diko di ko yóbbu tombe ak bisu alxames señ bi koor la yobale ndakaaru bi mi ñew ndakaaru koor la fi indalé bim diké wax señ yëm su jaxat nako ko dé koor gogé dama tendé fal ba japp né doo ko ci des te sax bu dog jotone gisuguma luma dogé fa lañ ma jëlé yobbu ko ci bobé muy nek bobu ñi ñi muy wax isa sakatu salikal mabita wa salikal amina suma ma fàttali ko fanan ma ak ka digli won fanan ma do bëgg lu jug jël jël jël jël si yaakaar naa panaanam suñ tubaa moomee mooy suñ matelas yu noy ñu fi fanan buru woon ak panaan moomee tant bi du am buru woon ak panaan moomee it kenn julli da nga ñaan permission bañ may la ko nga damay wax na tant buñ tant ak fuñ ko mëna tante wax ñu tànn ko ba bët set tudduñu fa suñ tubaa ñooñu gore wuñ ndax suñ tubaa moom li li muy ñaan naan muslimiin ak muri moominiin ak muhsiniin moo foofu mu naan muridiina waaw waaye nag am na fu lay li kulli man tax taxa laqa waaw ku nangoo bootu la ñuy boot moo tax mu ne li kulli man biya taxa laqa najaa waaw ku bootu wuti bu ëllëgee yaa koy xel a rëccu ndax amara ni rabbi bi an usarriha fa inni mala sunu maf saw loolu nee na si imsut jaxate bi mu koy wax nee na suñu borom bi mu ko ko sawee nee na booba yurut xalima yurut daa waaye dane daa taara sondeel si maase la rum bi mu la ko sotti duggee ci néeg lañ ko fa dugale nee na si imsut jaxate bi mu duggee ci néeg bi jàppoon naa ne ko moo gën a lëndëm xiinu wax set la ko wax moo gën a lëndëm xiinu wax set waaye am sutu bu doon xëy mu kese sax mu baax waaye bi mu duggee nee na ay ràbb lañ jam ci biir neen bi mu tegee tànkam rabb gi mu yëg ne jam na ko daa sar ba génn tamit mu làmbee loo xam da ko daj mu ne waaye am satu mënu maa ñàkk a teg beneen bi te wóor na ma ne bu ma ko tegee mu demee noonu waaye da lu mu ca teg am satu seen jëmm yi rek a taxoon de kon ñun waru waruñu am lu ñuy desal ci suñ tubaa buñ goree mu leen allahu rabbi wala usriku bi raditu billahi ba jaqul wala waxante boo ko tënkee mooy allahu rabbi wala usriku bi kon loolu la fa wax te bañ ko dugalee foofee da ba poxu sañ ko dugaloon am na lu yéeme la fa xew loo xam ne mëne su ko wax waaye teewul la mu métti métti métti suñu borom feeñu na ko foofa ci jaayante gi ne ko yaa jaayante fa mu ne ko waaw mu ne ko doon ohit mu ne ko waaw mu ne ko jàngal ma foofu surtout bàqara si ba xam danaa ko xàmmeeg ba nga nekkee Touba ñu lay xelli sa kafe ngay naan di jàng leer gi mu fekk fii fii nga nekkee ci coono yi jàngale ma fi surtout bàqara si ma dégg ba xam su ma xàmmee ñaari coono yi dagg liggéey bi fol la ci ci kuréel bi waye seigne touba ci jom jaag fidwa wa ak xel mu dal ma terataan bi alif laam kitab di jang ba leer ga don dikkel seigne borom ci Touba leer ga ko gën a leer moo dikkal suñ borom ci ci jaar ci ñaari néeg yooyee teewul mu na allah rabbi wala usriku bi ci lañ ko jëlé fofu yobbu ko gama yobbu ko Mayomba wax loko la gay wax mu ne allah rabbi wala usriku bi wala yobbu nañ ko fa mu ne allah rabbi wala usriku bi bañ ko yobbu lambar na ci la nak ne xaar leen mo waxal leen ñaari baat yoo xam ne ci ngeen di tàqali koog man baa ngeen def lu ngeen neex ñu ah mu ne léegi ci gàttal li ngeen jàpp ne dama koy bàyyi allahu akbar mimma kuntu afaluhu walastu axsa wala arju si wallahi sikri wa sukri wa ridwani wa mahmadati bil qalbi wal jismi wal aqlami lillah kon boy bo ngeen nopp daa mujj fit bi may ko sax fit bi sax may ko te waa mas ngeen gis kuñ jàpp ngay waar ñi la jàpp naa leen bàyyi leen seen jaaxañ ko dem jaamu ji yàlla suñ tubaab loolu la wax tubaab yi ci biir naa waa ji bàyyi jaaxante nañ jaamu yàlla di ngeen def nekku da wa man yusallis faridan malikan samadan fa jaahilun wa yulaaxi kulluhu alamu antum xoyaara usaara lillahi ni maam su mun waxoon ne ko waaye li ngay wax mu ne li borom bi ngay wax naa mu ne laqad kafara lazina qaalu inna allaha saalisu salaasa loolu la wax mooy ñi wax naa yàlla ñett la ak ñaar la moo tax mu ne wa man yu sallis faridan malikan samadan fa jaahilun wa yulaahi kulluhul alamu ñu ne ko koy kooku mu ne li rëbboo mustaslimina maan bi xaw fi man sonsiyaat an his bi sulamu yow kooku daa amatul tur mooy leen allahu baaxin qadimun laa yusaabihuma bil baari yaqturuhu mufradun halamu ñu ne ko yow léegi bi nga defee bi nga defee loolu ne moom nga ànd léegi lu mu la mu ne waxu wa hakimu lazi maa saa akaana wa maa لم يكن saa yéexoo fa daxara yéen ñu ne koku lanal lanal lan la mon koku lan fan ak fan la toj ci ni nga koy waxee ni ko gars di waxe legi diw fum toj mu ne len koku fim mu toj mooy loxul baraaya lahu afxaaluhum walahu jallal wujudu la qasanahu xasaanuhul xidam fa man lahu jalla yéen mii sarmadan wala dan musallisan fi qasara lahu xidam tay waji tobo tooboo tobo tooboo lahu sawi taslis fi hajalin kon muru moroomante wut te amna bis njaareem gi ñu fi jang woo ko si Masamba daajub bu di ko jàng si si mam man charno di fettasu di def ni fettasu ba yag mu jog di len wër di len wër ba yag mu yengal bab bi sëñ bi di ko xool di ko xool mais Cerno xanaa leen wax da neex yow mu ne ko mbàkke neex na lool sëriñ mi ne ko anam mu neexé mu ne ko dama xamul ñi koy jang la dama xamul wayen wi la dama xamul xalima gi ko don yenké wala sëriñ bi ne tek ba yag mu ne ko loolu lepp nga ci biir de dan nako ko cerna cerno li de fa ma ko doon waxee keneen kuñ fa yóbbu woon ku dul man nga tala wax leneen lu dul kon koku allahu rabbi wala usriku bi ci la demee waxuma la tuba bi di soppi suñ tubaab waaye nim don kala kaalawoo sax soppi wuko bim ñewé di wax lam don wax li ci gëna a moy mooy suñ den na ba dik ñu gisunu bi benn léget ci mom fuñu wone wane dañ ko fa xañ ba duñ ko fa dur amut ndax amon na xeetu wegeel gu nekk ci mom go xamné ne tubaab yële ko gënal na ragal ndax way suma taxaf ilaahaka al ahad yaqafka min xawfika hu ahad ca masalikul jinan bo ragalé yàlla nañ menti sax dañ lay ragal si ngam sut jaxate si suñu xëy di am na lu mu ko doon laaj di ko laaj ba yàgg mu ne ko loolu mënul su la ko wax ba yàgg suñu suñu xëy topp ci topp ci ba mu wax ko si si ngam sut ko buuxaale dana ko moo xëy di xamoo loo def ba ma wax la layoon ba yàgg ko suuf waaw waaye da ko caa tegal daa tàng moom suñu suuf daan na ko Modou Xëyri garab yi ragal nañ Sëñ Tuubaa xoolal bañ ko takkee ca garab ga mun ko Modou Xëyri ndox yi ragal nañ Sëñ Tuubaa nga xool ba mu sànnee der ba ndox ma nangu ko laal de mun ko Modou Xëyri meñ ment yi ragal nañ Sëñ Tuubaa nga xool ba jaay ba njaay yàlla gay dàq gaynde ak bañ ko dugalee ci biir gaynde ga mu ne ko Modou Xëyri garab yi ragal nañ Sëñ Tuubaa ñax yi ak suuf jaw yi yépp ragal nañ Sëñ Tuubaa dara jug ba mu dana ko daanaka doomu aadama mi xamul dara mo ñemee Sëñ Tuubaa doomu aadama mi xamul dara mo ñemee Sëñ Tuubaa te buñ nee Sëñ Tuubaa am nangam am ku ne ah sa est-ce lolu est-ce lolu yow wedd nga yalla ba noppi ak commando buñ waxee ci xasida yi Sëñ wax na ne nangam yow nga dégg-déggal lolu yow wedd nga Sëñ Tuubaa wedd nga yalla lutax nga wedd yalla mooy yàlla suñ tubaa lu mu ne am na ko yàllaa ko ko jox kon boo ne suñ tubaa mënu koo am kon da ne yàlla amu ko tey jii ab kàkkaar bu gaare woon fii am sut jaxat taxaw fi te muumu ko naan ko mu ne maa moom kàkkaar bi te ko dangay nax sa bopp suñ tubaa lu am naa nangam te amu ko na foofu ñañam wees nañ foofu kon li sëñ Tuubaa am lépp ne moom la am ku ne weddi ne amu ko da nga wedd yalla ndax yalla moko ko jox neena ta limam li gaay yepp am am nako ba nopi am lu kenn amut ndax suñ borom mom da mané wedd yepp ci niñ ko mëna déggé ci misal am na ño xamné dañu japp na suñ borom mom suukar képp la am ñu dem ñaan ko suukar ne ko suukar lañ bëgg lu dul suukar nak bëgguñu ko ndax japp nañ ne yàlla moom magasin suukar do nga am yalla neen tibbu leen yobbu ñu tibbu suukar yóbbu ñooñu ak fuñ mëna jëm suukar képp lañ mëna am. suukar rek lañ man am am ñu ne yéen da ngeen a dof yàlla amul suukar de yàlla cere képp la am amul lu dul cere ñu dem ca yàlla de ko cere lañ bëgg yàlla jox leen cere si bisimilah fu ñu mën a jëmit cere lañ am am ñu ne yéen da ngeen a yàlla amul cere amul suukar gerte képp la am ñu dem ca yàlla yàlla may leen gerte ñu yóbbu ñooñu gerte rek lañ mën a ki am suukar suukar rek la mën a am ki am cere cere la mën a am ki am euh, gerte gerte la man a am Sëñ Tuubaa bi ñu ne tëll bunt bi ñu ne ko yow loo bëgg mu ne muuraake yaakaar naa muraake boo ko xoolee cere nga ca suukar nga ca waw sëñ Tuubaa dafa wax ne wa jaw wasu ho indal balit in kana la yafhamu tal yani fit manam nit ku nek del wax fi muy dégg ngir mu meuna deg li ko bëgg wax kon lo mboolem luy jariñ ca yalla ci loxol sëñ Tuubaa la tege tay wa ma rumtu min malikin khadabil ani lol lañ ko xam kon mom kenn sëñ Tuubaa mom kenn wu loolu ma doyna teunk ngir waxtu bi doy naa tënk ci ci ñak loolu ñàkk moroomu mom euh euh ak teranga ji muy nga xam ne mooy bëgg ray nit ñi nak mom teranga Sëñ Tuubaa ji nga mën ta dak waaw murit yi fo leen fekk ñuy solo ko sumbiku di rendeekal lek ak naan saye loolu mom déranger nañu bare bare bare bare waye dañu jangul sal ilahu annani mukarram mukarramu wa wa bihi wa bihi joju lañ jangul waaw wa bihi nee far force teranga lay am far force waaw tay ginaaw ñun dañu and ak moom te nee na minde fi yep mi ngi ci moom nafaani wa bi yan faxul wara kooku ta ñak waaw legi nak ñima yeeram moy ñi nga xamne dañu fekk mbarum señ bi bañ mbar mo xamne ne ba ñu fekk woo ngay ngay daanel mbar mi dafa ndànk de bi gaay dikke japp ci mbar ni dañ koy yëngal ñu da wax ko señ bi ne ko señ bi gaay gaay ñu ngi doon xeexe ñom sax ndax ñi ngi daane bëgg daanel mbar mi señ bi ne la ilaha illallah bismillah dem leen ci ndigal dama leen digal ak ta tok diglu leen dañoo bëgg a suufeel sama sama mbaar mi ñu ne waaw mu ne leen ñoom ña ngay gën a suufe te yëguñu ko fañ taxaw ay pax la dara darajat yi taxlu walay seetan xufit waman naha mi ñal waraa xaf di xufit sooy suufeel sëñ Tuubaa yaa ngi gën a suufe sëñ bay gën a nañu xam bu baax li ñu am lu mu doon dañoo am lu kenn amut muy sëñ Tuubaa kuy yemale suñ Tuubaa ak leneen nag sax murit des na te léegi gaa yi dañoo sedd lool ci wet yu baree baree baree baree yi ñu toloore bari na lool yi ñu toloore bari na lool beneen bi ci desit mooy suñu pas-pas moo des mag ñi gëmoon nañ Sëñ Tuubaa ñun gëm nañ Sëñ Tuubaa mag ñi yaakaaroon nañ Sëñ Tuubaa ñun yaakaar nañ Sëñ Tuubaa mag ñi daanañ liggéeyal Sëñ Tuubaa ñun ñu ngi liggéey Sëñ Tuubaa waaye dafa am benn point boo xam ne ñu bari mag ñi raw leen ci mooy wóolu Sëñ Tuubaa lu jafe la wóolu ko mu wóor la ne moom ka woon de ñi ñi ñi naan euh, moom dañ koy wax sëñ bi fekk sëñ bi yoon ab socc suñ tubaab ko ñemee responsable ab socc la yor ci njëriñ ba mu faatu ñu koy waajal na téere yooyu ñu baaxoon na foofu socc bi ne dañ ko booleeg moom sëñ bi ab socc maam noppi na ci lépp sëñ bi jekk na foo ko fekk rek pare na bu doo xettali ab teel bi wala yooyu day dagg ci mbun bi rek am na koo xam ne bi mu faatoo ci kaala gi la dagg ne nañ ko booleeg moom socc boobu ki ko booleel bi ñu ko dencee ba ñëw soo gisee suñ tubaa bu mosaan wax ak mag ñi ba noppi ne xanaa nangam jaaxal na leen bëggul ku jaaxale ci moom ndax ku jaaxale ci moom nga jëm boo jaaxale ci moom foo jëm kon moo tax da leen di leeral xanaa nangam jaaxal na ñu ne ko mu ne nangam a tax mu ne leen socc boobu yi ma jox ma boolee koo kii de xanaa jaaxal na li ñu ne ko mbàkke day toirkar mu ne waaw moom moomee day socc boobee mënal na ko foofee mu nekk loo xam ne dul socc bi mën a lukk daanaka su ngeen gisee léeg-léeg ci fere yi am ko am ko am ko faatu ma dagg ci sama dara yi jox ko sama borom daf maa xamal ne ñii laaj ci bàmmeel sama xet da leen du leen xeeñ lu bokk ci man du leen xeeñ moo tax ñuy boole ay jaawartoog ay nangam ak nangam ak nangam ñun suñ tubaab moo ñu yor bu ñu demoon ba àjjana fekk ñu fa sëñ bi yét fa sëñ bi ne képp la ñuy seet loolu nañ ko war a xam. tayit ñi di déngaan ñu noppalu ta xam suñu tuba mom ba ila yomi diini mënuñu ko bàyyi ci suñu deret la bok mënuñu ko bax waaw mënuñu ko bacc genn wet nak ci lenn tayit lu way yor lu mu reey reey rëy baax na sell na tuwaar kala yalla ko yalla gëna yok waye suñu tuba ñu doy ñun ci loolu lañ nekk foofu lañ war a te gëm ci ñun waye nak fi may mujj moy suñu tuba moomu ñu gëm tayit ku ñeme responsabilité moy suñu tuba ku ñeme ci ko ñeme responsabilité suñ tuba mom lim wax ne dana ko def kenn mu tutay mu def ko xam ngeen ne bamel yu qad yi ak niñ mel lam waxon suñu si sut ne ko lolou ñuy wax bam lolou ñuy wax bamel xana ragal ngeen ko lol mu ne ko mbak ragal nañ ko lol suñ bi ne ko ragal ngeen lu mat ragal suñu yëpp sut ne cell ba yàgg mu ne ko waye yaakar nañu yaakar nañu la fa suñ bi ca dem tedd tedd nga jëm mu gessu ko ne ko yaakar nga ko fa ku mata yaakar yaakaar daana ko bu ngeen góorgóorloo ta sax limu mu bëgg lolu ñaan am sut lolu ñaan diw tim nako diw suuf tim, nako ku ci aaju ci man ta deugal bu suuf du la kon ñun kok sëñ touba sax kok sëñ touba sax ay ajana, ay yoyu ñun xam nga lu ñuy ñor jima sax ci li sëñ touba bëgg nañ xam ak bëggam rek sax ca ndax kat buñ ko ree noonu la ñu def ndax mom non la yantabi sallallahu alayhi wasallam nimal muhaiminu anil mayli amaxtira wal hab aqmanu jaamu ma yalla ngir ragal sawara jaamu ma yalla ngir bëgg àjjana suñ tubaa day jaamu yalla rek ngir bëgg yalla bimi tag yonent bi tegg ko ngir ne juddu baak wala nangam ak yonent bi suñ imam rusul waxee bëri yeeti déedéet dahaani liix nabi hubbu saatihi la wax ta ñun murid dañu wara noppulu ci suñ diggante ak suñ ci matière maa ngay wax legi matières yi ñu suñu tubaab wutal matières yi ñu suñu tubaab wutal suñu waxin bokkut ak waxin kenn suñu doxin bokkut ak waxin kenn fi ne nii wàcc wàcc wàcc ñu dugg ci wanag wi wàcc sax ni ni ko nit ñi waxee ak ni ñu koy waxee bokkul waaw bu ñu fas soxnaat koy wax ni koy waxee bokkul ak nuyu kenn fi ne na nga def na nga def rek jàll ñoo ngi siyaar gën a gën a gën a gën a mat ku wax ñoo ngi siyaar tey jéggulu Tapi fi ne ñoo ngi siyaar maa ngi ko doon wax legi sëñ Tuubaa ko njëkk def yonent bi yonent bi ko rom mu ne ko ñoo ngi siyaar waaw yonent bi ko rom mu ne ko ñoo ngi waaw mu ne ko looy mu ne ko ay suma kuntu ya minni la ko wax waaw mu ne ko fan ak mu ne ko ay suma kuntu ya muy mu ne si yonent sa tàll loxo bi ne ko bismillah siar bok mu ne ko wa ruhi bil busarati sa tay ñu war a xam mooy ay tux cigarette ak naan sàngaraak suñ tubaab wuutala la ñu bari pour loolu xoolal guru ak tàndarma nga xool bitilub sàngara na nar koy xemem ñu bett la kaasu kafe bu tàng jër damay wax ne ku yaakaar suñ tubaab sax wotu wotu ay ay ay suloog yooyu waroo ko def waroo ko def te kenn ku nek te yaakar suñu tuba war nga rus faatu teud ci jaat ñu naan nañ dag nangam bala ñu koo sang wala ñaan nañ nañ def nangam bala ñu koo sang ku ne war nga ko yaakar sa diggante ak suñ tubaab te suñu tuba mo ñu defal lepp te defaluñ ko dara amul ku suñu tuba kenn bo waxe ya, ñu naan suñu tuba kay defal nañ ko dara ku <laughs> ko defal dara ci misal man ñi man ñi daan wax ñi def leen ñuy def seen njariñ la won kenn ku nekk fa la féetale woon ngay ngay def bu du woon ak sëñ tubaa la nga am doo ko am ñu toppoon sëñ tubaa ñëpp nag laa wax koo ci jàkkaar loolu fi may waxee yow ne ko loolu sëñ tubaa defal buy wax ba mën naa wax fii ba déwén te du jeex waaye boo ko ne loo defal sëñ bi lu mu lay wax dara la wax loo defal sëñ tubaa dinaa defalu ma ko dara moom koy moom a dimbali waaw moo tax sëñ bay jaxate ci xam sëñ bi sëñ bi day jàngale ay bind léeg-léeg di ko jaarale ci nit daa am ko toog ci wetu sëñ bi sëñ bi daan ne fekk ñett ñu toog sëñ bay jaxate ñeenteel leen sëñ bi ñëw lëng kenn ki ne ko diw maag sa jëmm ji ku la gënal kooku jooy ne ko mbàkke yow ma gënal sama jëmm ji mu ne ko xam nañ ko ci yow de lan ki ci des ne yow maag jëmm ji ku la gënal mu ko mbàkke yaa ma gënal sama jëmmi ndey gënal ma sama jëmmi bàyyi mu lëng mu lang lëng ki ci des ne ko yow maag sa jëmm ji ku la gënal kooku fop bopp duur ci suuf ne ko yaa ma yaa ma gënal sama jëmm ji gënal ma sama jëmmi ndey gënal ma sama jëmmi baay boo ma laajoon sama bopp ndey ak sama bopp baay ma dagg ko yëdd daal di jooy sëñ bi ne ko xam nañ ko ci yow de ñu mu des sëñ bay jaxate sëñ bi di ko ba yàgg ne ko Babacar jaxate yow maag sa jëmm ji la gënal sëñ bay jaxate ne ko sama jëmm ji ma la gënal fuuf mbàkke ñooñu jàpp ci mu ne ah xamoo ne baax kay wax moo xam ne ku baax kay wax moo tax ma tontoo noonu sëñ bi ne ko Babacar jaxate nga ne maag si jëmm ji ku la gënal mu ne ko sëñ Mbàkke sama jëmb ji moo ma la gënal fuuf sëñ bi ne takk bi ak mu ne ana la ko waral mu ne alhamdulilahi rabbil alamin Mbàkke ba nga ma ko laajee dal di taxaw ne ko waaw ñii dañu xamul rek Mbàkke li tax ma ne la sama jëmb ji moo ma la gënal mooy bëgg sama jëmmu ji moo tax ma topp la yow ku la wan ginnaaw tuskare kon bëgg ko ma bëgg sama jëmmu ji ñoŋ moo tax ma topp ci sa ginnaaw kon lu ñu doyee Sëñ Tuubaa li ba ko suñ bay jaxat di way naa ko yaa ñu gënal sunu ndey yaa ñu gënal suba da ko ne kaay ma wax la mu ñëw mu ne ko dangaa juum danga naa yaa gën ci nun sunu ndey mbay jaxate gën ak gënal bokkul daana ko mbay jaxate mu ne ko mbàkke mu ne ko li ne ci man bu nekkoon seen ndey ak seen baay du loolu wér na li ne ci sëñ Tuubaa ku mu nekkoon sa ndey ak sa baay looy doyee sëñ bi kon ñun murit li nga xam ne moom lañu war a moom lañu war a xëñte woo mooy ji ma seet li sëñ Tuubaa bëggul ñu nekk ci te it kemtulaay na suñ tubaa bëggee yonente bi ñu bëggee noonu yonente ñu bëggee noonu suñ tubaa ñoom suñ tubaa da bëgg yonente bi bëgg bëgg bëgg bëgg ba xare ba yonente bi masa buñ masa gañe yonente bi sax suñ tubaa du ko tudd xare boo xam ne dañ faa sonal la yonente bi wala ñu xaw ko faa gañe suñ tubaa du tudd xare booba lépp loo xam ne buñ ko waxoon ci sa bàyyi mbaa sa ndey du la neex mus ko wax yonente bi laylatu mawlid nabi rek lay wax laylatu mawlid yebbi bi ana jaatu wala fala hatta sarirun kasara nurun azimun qalira amul leneen lu wax boole ko di ko woow façon woow yin yoo xam ne kenn fekk ko ci ahmaduna rahmatuna hamiduna nihmatuna mahmuduna farhatuna ak najibun najibun nasibun nasibun hasibun sohata in ak naqibun raqibun mustajibun musassabun masihun malasun wa huwa maahi wa muxsin ci bëgg gu nga bëgg yi nga xam ne moo xew yi nga xam ne moom moom lañ war a dox suñ diggante ak suñ tubaa mooy nag kenn ku nekk ni nga gisee murit gi loolu lay lay lay tëje loolu lay tëje gàddu yi ak soxna yi loolu lañ waxoon yaakaar naa waxtaan itam ci soxna yi seen digganteeg seen borom ndax jaamu yàlla gi suñ borom da ko digal góor rek bàyyi jigéen wala déet loolu it mbokk mi waxoon na ma ne ci laal tuuti ci soxna yi nu ñu war comporté woo ci seen digganteeg seen borom ak seen digganteeg seeni i sëriñ ak yéen ñee ayut aaya ayut wala daa aayoon ba yàgg ñu far ko bàyyi def ko gratuite yooyu yëpp it lu mat bàyyi xel la waaw ndax léegi la xaraamoon ci ci alxuraan dañ koo soppi léegi ne xalaal la léegi wala ñu naan dañoo dañoo sukkandiku ci maanaam ni ñu koy waxee sax dañoo sukkandiku ci gaa gaa yi tom boobu ñuy weex naan toll ci def ko wess ko bako dara new ci ah kay dara ngi ci dara ngi ci de kon ñun murit yi nga xam ne dañu yaakaar Sëñ Tuubaa ni nii ñuy dund Sëñ touba bu Sëñ touba ndax nan la ko mam Cerno bëgge won nan la ndax nan la ko Cheikh ibrahim Fall bëgge won bi ñi ñu koy bëggee ñun bëggin wi diko wax rek fuñ toll diko wax te jëf ji dess loolu yaakaar na lu mata baye xel suñu digënté ak touba ak it murit gii ñu xool nga xam ne léegi facebook yeeg whatsapp yeeg da ngay gis koo xam ne dafa yor connexion bu doy sëkk añ ci ceebu sëñ bi ba suur naan ci ndox mi jaaxaan nag ci lalub sëñ bi naan sëñ bi daa war a ndax loolu ci murit gi la bokk léegi da koy dégg ci facebook yi gaa yi wax seen xalaat naan sëñ Sidi Muxtaar daa war a nañu wax Cheikh Bass mu wax te yow kenn xamu ko yow yow yow yaay kan ci murit gi yow yow ba yow ba naan dañoo war a wax te boo jàngee sifaatu saadixil muridi bi ixtisaar tarkul ixtiraat dañ koy tere sëñ bi wax ba àgg nga naan nga naan nga naan sëñ bi daal daa xam ne adduna rek walakin walakin da yàqi wax muy waaye te léegi da ngay dégg ñu naan murit yi léegi yii de moom sëñ bi mën nañoo banque seen tànk de mën nañoo rëpp rek banque seen tànk waaye seen xel mii de moom ñoo ko moom dese na ñoo nekki murit dese na ñoo nekki murit mbaa rëyu ñu mag ña Cheikh Ibrahima Fall ak sëñ Balla Fall Dieng sëñ Massamba Diop Sam ñoom ba ñu jébbalu ci sëñ Tuubaa dañoo banque seenum xel banque seeni tànk banque seenum xol jox ko sëñ Tuubaa gis-gis ñu demee ba naan nag murid yi léegi dañuy banque seeni tànk waaye banque seenum xel dese nañoo nekk yi murid dañoo nekk suñu murid nañu waxante dëgg te nag ñu bàyyi man murid gi nii laa ko gisee amut noo koy gisee yow ni ko sëñ bi waxee la amut noo koy gisee ni ko sëñ bi waxee ni la sëñ Tuubaa nee woon na lu waay neex def lu waay neex jëf ku ko dégg faren ni ko wuti man ëmmu ko ba bëgg ba pare bëgg àjjana nañ ko bàyyi xel de te léegi da ngay gis man de sëñ bi nangam da ngay gis kuy def sax loo xam ne du noona nga dikk di ko laaj biire mooy la sëñ bi boo yoree ay ay conseils yooyu joxe jox ko sa bopp man jébbalu wu ci yow te yaakaaruma la dañ cee gaaw loolu léegi léegi kon nuy laa mbokk mi nu koy laa am ko xamne kenal mi duma bàyyi mu fen ci wete jumaa ji la jaar cappax cappax dal yi am ku koy lay bi nag sëñ bi dal yi ku bax dal yi fali wu am ku ne ko sëñ bi dégg na la bako lu waaye de bopam mu ne gees nako ba nga xamee na nga waron nopi ba nga xam lu waaye de bopam kay ma ci wax ko bi ko ku ko bëgg dimbali fo jaar ha te bu tele bi si sutu da daan jadd sëñ Balla fali jeng fekk ko fa jubandiko mu nangu waye legi ku deung boko ne bi da mel xana bo summi sa mbaxana mi sax léegi dañ ciy xuloo ku baax boo mënoon summi mbaxana mi xanaa sëñ bi xoolal man sëñ bi murita murita muritawu mu la de boo amee ay kii yoo ko joxe nga jox ko sa bopp léegi nit ñi nit ñi lijjanti ko ah léegi dañoo moderniser moderniser moderniser moderniser ba man dama ne moderniser moom mooy kan ba ñuy moderniser moderne ma ma jëmi moderniser ci boppam moom xanaa dañ ko war a moderniser moom it waaye fi ne lépp moderniser na ko moderniser nit ñi siyaaree dangay gis ko Europe siyaar Euh, balaa siyaare sëñ bi dina defee noo xam ne tey léeg-léeg nga gis koo xam day ñëw ci kër sëriñ bi jébbalu ci moom sëñ bi nuyoo la na nga def nan ne càll nga ne sëñ bi du ma fi ñëwaat ndax damaa yëgut sëñ jiw bu fa demee ni mu may def tamit ci kii laa jébbul moo ne la woon kay jébbalu ci man ah léegi dañuy yàq ab mooy man de ci sëñ dikk ci ab sëriñ ne ko ci sëñ jiw da laa jébbul woon waaye waaye man moom sëñ bi sëñ bu defu nangam ma bala fay dem ci nangam loolu sëñ tuba nee na boo gis amee sëriñ jàpp ca waaye boo demee ba doyatu la bàyyi ko dem ci beneen sëriñ waaye bu ko wax ñun nag dañ koy retax ba di ko wax di wax ay bi sëriñ sa man de sëñ Tuubaa nekkoon sama sëriñ waaye ba ma gisee mu def nangam ak nangam ak nangam sëñ tuba tere laa tere loolu bu ñu la lu tax nga jógee ci sa sëriñ ba nga amoon nga ne ah xanaa dara rek dama dem ba yëg ne murituma sëriñ ma bàyyi ko waaye nag bul bul wax la ngay da ngay nettali leeral ku ne nga wax ko kon loolu nañ ko bàyyi suñ digganteeg suñ suñ suñ tubaa te wattandiku gént yu bari yi man léegi dama ne xanaa gars yi nelaw rek la ñuy liggéeyee foo leen fekk ñi ngi gént rek naan biig dama gént dégg nga ma fàttali bisiri feeñu ma kii naan noo dare ne ma feeñu yor jëm mu ne ma nangam ak nangam kii ne ma suñ tubaa laa fi moom feeñ sol lu weex yow da ngaa gént ko sol lu weex rek xamoo suñ tubaam déet suñ tubaa fam nekk tëlut ay gént ak ay nangam koy gént ak def yëf de te it gént moom firi na boppam ci ku baax boo géntee gis suñ tubaa yow ci sa bopp mën ngaa firi sa bopp gént gi jëru ngay woo kenn mooy lan dangaa nekk ci lu baax Sëñ Tuubaa naa la waaw góor nga gën a góorgóorlu way laa nga nekk ci sa faan mu naa la uh, uh, uh. mu lay fettasu léegi nag uhu jooju nag ak waaw góor jeexool boo ci boo ci moom nga jël waaye jur ngay woo kenn naa ko bi gis Sëñ Tuubaa mu naa ma nangam affaire yi gars yi sama gars yi sama gars yi ñun ñëpp a kaalaw ñun ñëpp a te fii ma di Cheikh Ibrahima waxoon ne ana koy rot feesa la góor di tàngatu tuur ndax da nga yóbbu ndox ñu bari fi ne ñu ngi tàng di tur te yëguñu fu ñu fu ñu gis am na ñoo xam ne fi ñu taxaw jógaguñ fi maa koy wax léegi am na ñoo xam ne ñoo nekk ci 4 x boo xam ne amul moteur léegi nag ñu tent weer yi ñu nekk ci biir oto yi wii fiif di leen romb ñu jàkkaar ne yaakaar ne oto yee taxaw ñoom ñooy daw ñu naan gars yi de xam na bala ñoo àgg léeg-léeg njege njaay buy ñu naan hii bi oto di sëñ bi yaakaar na balaa yegg fekk fekk yow yaa taxaw fi nga taxaw jëgugoo yaakaar naa bu àgguwaay ba jotee ba ubbee rus rek ngay def nañu bàyyiwaat xel te tegaat suñu tànk ci la ci ci ci suñ tubaa wax suñ tubaa niwul kenn dama lay tungoom yóbbu àjjana te léegi kenn ku nekk léegi yaa gën a sëriñi sa sëriñ yow kenn ku nekk ci ñun yaa gën a sa sëriñ da ngay discuter di wax sa xalaat man yoonu murit léegi yoonu murit wax sa xalaat la waaw lu may xalaat rek yónni yónni ci Facebook bi man diw man maa ne mbedd mi nekk barab sàngam na ci sëñ bi wax nañu defaat ndànk te gëstuwaat suñu digganteeg suñ tubaa te fexe ba suñ suñ digganteeg suñ tubaa leer suñu solution yi wax na ma ko sa digganteeg nit ñi bu leeruti fexe ba sa digganteeg sëñ bi leer bu su digganteeg sëñ bi leeree lampe boobu mooy leeral sa digganteek nit ñi tey ñu góor góorgóorlu ci lan mooy ak jub personnalité bi gën ci personnalité yi mooy ak jub te ab murit dafa war a jub ngir jëmmi sëñ tubaa waxuma ngir jëmmi yàlla ngir jëmmi sëñ tubaa dañu wara jup ngir jëmmi Sëñ touba bëgg lu baax ngir jëmmi Sëñ touba bayyi lu bon ngir jëmmi Sëñ touba lolou dañ ko wara def fexé ba suñu digënté Sëñ touba ñu baña def lo xamné bo léggé bu ko Sëñ touba gisé bu ñu gisé ñu rus Sëñ touba nak néwon na ko aju ci man luñu la bindal bu dut nana bu dé lu lay sonal lu lay sonal ëlëk la dina ko dindi waye bëgg na ngeen gor góorgóorlu sagal seen bop ci man ba duma dindi lu bari lolou sëñ bi waxal nako waaye gëm suñ Tuubaa wóolu ko te seen si Abdou Lahad waxoon na ne foofu waay nekk nekk fa ñoo xam ne dañu ay murit yow moomee nga mel melokaan woo xam ne ku la gis xeeb suñ Tuubaa ngir yow yow moomee de koo mën a doon na suñ Tuubaa wax nga mel ko meloo te yi ñuy wax suñ Tuubaa yëpp ay seen murit rek yëpp ñu naan dañoo caricature suñ Tuubaa ñun ñoo tax ñu caricature suñ Tuubaa ndax ñoo ànd suñ Tuubaa ba noppi mel noo xam ne suñ Tuubaa bëgg ko te ñooñu mosuñoo gis suñ Tuubaa ñoom mosuñoo gis suñ Tuubaa dañuy gis ne ah comme ñii la àndal kay ñii ñooy waa këram nañ gisee ci ñi daldi di wan ne ni xool si suñu jukko rek ne Sëñ Tuubaa nii la mel Sëñ Tuubaa lu weex tàll la loo ci dugal rek couleur boo ci dugal rek bokku ci lu weex tàll la nii photo yi mel nii mu mel nii nan lépp mel daraam xonqut daraam bulawut nii mu rek la mel euh, kon lii mata bàyyi xel mooy ñoo xam ne suñ diggante ak Sëñ Tuubaa moom la suñ tubaa wax ne dana ko def moom lu leer nañ la ay ajjanaak ay faj aajoog yëpp kenn ku nekk ci ñun dàll bi ngay sol ba sa bàyyi di tol na yow mënu koo am te suñ tubaa tax kenn ku nekk ci ñun ba ci man mii la sama bàyyi daan dugg ci ay oto di ko lijjanti li li ko dig lijjanti ji tip téléphone laay taxaw balaa maa wax ñu yónnee ma ko yii fi yaa ngi dox kat nañuy sant te bàyyi jàmbat yi te sax ci ab jub ak jub nag du jukkib xasida booy jàng booy jàng bés diw dàq jang ci kuréel gi taxut jub de diw de mom koor gi mom wer wu nek mu wor ci ñett fan taxut jub de diw de mom foko fek fekk nu ni mom bis bis juroom ñaari yoon jëli butu fukki yoon ak juroom taxut jub de taxut jub de bis bu set nga naan kami bi nafila ko ñaari raka, taxut jub diw man ci daayira bi taxut jub bu sëñ wote nga fakh daw yu jub deug deug jup moy baye lu ban dirul bind dirul mas si yeb lahat ne na bala nga xamne moy mooy ñak personnalité nga koy def ba sa doom fekk la fa fa sa do bëgg mu doon sa baye nga doon doon ci ndax kat kon personnalité bi gën ci personnalité moy jup inna akramakum indallahi atqakum wala tutlubul karama bi khayri taqwa fa innal karama huwa taqwa kon gurgurlu wat sam suñu bop ta wàññi température yi nag ajo bi ñu wàcc nag wala tamsa fil ardi marahan innaka lan taxriqal arda walan tabluxal jibaala toolan kullu saalika kaana sayyi'atan inda rabbika makruhan mënoo fee yoqamti ko yoqamti ko balaa asamaan si mënoo sori dal di tooje ka këcc këcc ba xar suuf si nga faatuñu suuf la ci kon ay yëpp nag ndànk rek. am sut jaxate mu kaalaw wax ci suñ tubaa ñu naan am sut jax fu ñu ko séen muy xuggalee kooku summi doo kenn loolu dañ ko war a xam te xam li ñu fal xasida yi ñuy jàngit ñu xam niñ ciy doxe xasida nanga man yëg-yëg laa ciy doxe jàngi xasida ba miir julli jot julli woonaa man sëñ bi moom ñaare bu ma miiree ci xasida yi moom du du ma ñaare julli gi kenn waxu la loolu waxuñu la it nga jang téméri maraxib sa bopp bi sa bopp bi batiku fa ne mu batiku fa nga nga nga tëlëru tëlëtoo kan suñ tuba waxu la lool tay di bo demone ci médecin bi mu bindal la ay ay ab ordonnance ha ah? nga dem ci pharmacien bi boo jël jënd ñu bindal la téméri pikir wala fukk pikir ak juroom légui yow yaangi dëkk fan kolaban légui yow war di xey ci di dem di dem Mermoz wala ngay dem foo gën sori fofu di pikiru saa sori ke ñu pikir la ben ah nga ne man dal señ bi gis na ne fini ni fa ma dëkk da xaw sori te gis na ne fini comme ben ay pikir la rek dama bëggoon jey fukk pikir juróomi nga defa noo ma ko ha? Ah, ya yaakaar naa tank, yóbbu tànk sa ta ta do ki non la qasida yi demé non la qasida yi demé dafa am ben way bu ñew sama kër jang qas di jang di ma jangal qasida jang yu xubat Ku bal ki bi ki nit magis ma gis am luy gene ci bakali yi ma ko taxawal mu taxaw wa kay jërëjëf barkalla dal kala mu kii ba ki di xali kasu so dox ko mu nan mu nan ki ki ya saka ndax man nga jang ki ni dank rim ni mu ne ma waaw man ak bax baax ko rim ma xol muy rim di rim ba xasida gi jeex ta ñakku def dara ma ko ma waxal ben baat ñaari baat yo xam na ma la koy mu na gis nga mi nga don mu na mënoo koo yuuxoo yuuxoo yuuxoo ba waaw yi wëlbati ko te soppali ko ak ak ak xëyin wala ak ak ak miim te sa maam ak sa maam ak sa maam yi maam ak sama maam yi maam fee ko bàyyi ab tool nag boo ci dee bay te xamoo fu digg wayam day def ndànk rek waaye yëf yi dañ ciy dugal yoo xam ne ak nit da cee baax waxuñu la ngay jàng xasida rek di di di bëgg a rey nit ñi bu liggéey jotee da ngay dem liggéey. bu tëdd jotté nga teuri bu yeewu jotté nga yeewu di sol set ta bàyyi yenn yenn yenn yenn wax wax yi yu xam so amu solo fexé ba nité mo gën lolu do nit nité garabam mu né dédét nit nité moy garabam yaakaar naa kennal mi dama bàyyi mu ki amna ko koo ci kanam suñu am sut la ñew jalibatu marahib laay jang xuma la nak lan suma ma na ma sawara sax man nangam ak wax wax wax wax seigne bi dama gess na wax la mom moom ko bi bàyyi si caaxaan yi ngay def ñaar ñaari tu ngay jàng mu ne ma juróom-ñaar ma ne ko yow bo jàngee boo jàngee juróom-ñaar la lay def ni ma wax waaw mu ko ku la lu juroom ñaar jàngal ben bu fekkee bo jàngee ben mu def la ko ubbil di xol bay bu fekkee bu ubil xol mu def la ko na la beneen bi ci mu naa ma ko sëñ tubaab mi nga nan buma ma mu lakama da nga xamu sawara rek sawara nga xamul rek motax nga naan ay musuñ tubaa ma lak musul ne yalla musul la ci sawara te suñ tuba it amul kumi lak mom yur yur sawara ay xal la yor ta ataya kafe la ci tangal bas caaxaan yi waaye ci suba ay fan lañ ci tek ma tasek mom ci juma ji mu soog ma seen risam bu baax de nga manako fa dem ma liggéeyoon ba wacc ni manako legi ko xasida yi mu ne ma ngi def na nga don def manako ana soxna sax mu ne ma dil sina ci kër ga ma fa tok de nga manako ni la mu jang jang ba de nga naw nank rek dégg waye waaye nak nag fajuk aaju ngi ci bir ci la lepp nak ku gën bëgg gëna gaawa ag ci suñ tubaa ag yalla del jang xasida léeg-léeg ñu nono leen tuti waaye nono gi du dara tedd nga ji la rek teranga ji <laughs> xasida da yor ay teranga am yo xamne mom da dala koy sanni rek bis bu set nit ñi di la ki muy gëna yëkëti ko rek da lay gëna yëkëti rek waaw xasida mom mom teranga am la yor léeg am ku nan señ bi diw war nga wax ak mom ndax xasida yi muy jàng da xawa sagan mané ko la xasida soxla ki jàdd ci yoni koku la xasida soxal dagu indi wat ci yoon wi kon gor lu wat ta léeg-léeg am kuma woné ma señ bi xasida sangam lo ci xam ma ne ko jàng rek lo ma mëna wax ci béy sangam ma ne ko jàng rek señ tuba waxu ci won dara lu jang jangal rek yi ngeen def di luqiwaat ay tak ak ak kii amu ben njariñ si jangal rek señ selu ne na seetlu de ku ci mëna bañ fas dara sax mo gën ndax liñ ci fas lepp sëñ bu fasoon ca ne na bàyyi leen mat leen fasaaleel ndax yeen su ngeen fasee su ngeen feccee aw xandeer lay doon sama suma fassé suma su mu doon wurus mi ngi mel ngay jang tu fot nan dama ci dama ci fass guddu fan toola hayati wa kasaba ba dara hil kay wala jur nga guddu fan hmm? kon khazira sangam mo gëna ëpp doole khazira sangam nak yoy amna ko ma ko daan leen ma min mu baax xadi ne ma xanaa ma ne ko moog jaawartooyam rek yépp suñ tubalim doole ji jan la loolu dañ ko wara xam bu baaxa baaxa baaxa baax dégg nga dangay gis ko yoro ak mu faatul bisiri di ko jàng di ko jàng ba yag mu dem ken ken koko nak man na sëñ bi nuru lay jang waye bima ki kii jangé nangam nangam di wax wax mu ne fa tegg mu faatul bisiri ba di xaaral ma ndax ma yegli li waji waa ya-, bo legge mu dem ci kanam mu ne man seigne bi kaan haqan rek moy waaja re kuko ko jàppul xam ah legge seigne bi loolu bu yagge yow fas yep tëbal nañ dem yow nga nek di sensé fas rek kañ ngay war so fas yow te léeg-léeg ngay gis ko am di jàng jës boog mu waaye bu mu xaddimaat am ko ko romb am sut jaxat romb ko yorub jali ba ko saa yaa ngi ci gone yee jës boog mu waaye bu mu xaddimaat mooy gone yi te sëñ na jës boog mu waaye boog mu xaddimaat ñooy sama fas yi naaru góor yoo nga xam ne ku koy war ta wàccoo ko ñu indi la ci man nañ bàyyi séeneen gi te def ko ci ak nite li may wax nag xëy na mel na nu reetaan lu waaye lu wér la leen wax lu dëggu rek la tey dama ciy jublu rek ñu bokk jariñu ta ni ñuy dundé señ touba mom ñu gëna dundat señ touba nañ ko war a deug deug deug señ touba ta bayyi bu nexé ñu né acca bu nakaré ñu naw lool kenn duko def ta gëna a ci señ señ suñ tubaa bañ ko bolé dara ciow yi nak bari na fu ne fu ne kàddu yi ngi fay jóge waaw señ touba bu doon ko ñu daané la daan na bu yagg ndax bam né ñokkat lañ ko du amé mu né dana fi amé waye da nee woon na bu doon yalla da bok da yot jikko mak mo bok jikko waaw yàlla ya bu ne bu rëddee aw rëdd nga far ko mu rëddaat ko nga far ko mu ne la bu ko rëddaat bu ko faraat da koy rëddaat nga far ko dalay rey rëdd rëdd ko ba noppi ba xam nooy def waaw dalay rey ba noppi rëddaat rëdd yi ba xam nooy def Sëñ Tuubaa noonu la mbiram mel waaye nag am murid du yaafuus nañu fab liñ gën a baax di ko jox Sëñ Tuubaa sëñ tubaa mom yalla may na ko lepp yalla jox na lépp sëñ tubaa ndax am na bi sëñ be jahat nako fekk mu tok mu nako ko war nga sant de sëñ mi nako alhamdullilah rabbil alamin mu nako war nga santane nit ñoo lay le di wareelu it di sant sëñ mi nako an lako waral mu nako ko fi gis yalla ay yef lako jox mu nako waaw mu nako yow ba jëmmam la may ta fini bu am su jahat ne ne yalla neena yalla may nako ñu ne wax te ba ko be jahat dox fi digënté yalla ak sëñ bi mom tégal né bu lijeenti waaye nak téwul ñu xamné ya sëñ tuba mom du yalla sëñ tuba du yalla du yonent bi du malaayika itam léegi ñu gis na diiw de malaaka la muy muy ko war yo ngi lay xasta te ko ñi a malaaka ah ñaan diiw de moom malaaka rek mu gëna malaaka malaaka law nitel ndax gina mo re malaaka yi wu di mo ca kaw fi nga ñi fekk ñoy bokk li ñi defandoo ñokay ñoo buñ la ne malaaka yi toj da ngay dañ nax rek nañu dindiwaat wat ci yëf yi man dal yëf ni ma ko na Cheikh Ibrahima daan def rek sol ay paan manam yu bax ñu naan Cheikh Ibrahima dawul ni ak dawul solo yoy Cheikh Ibrahima daan sol lu bax touro ay parfum yu bax di yey guram naan kafeem foo ko romb xetuk sikki gi bitéel yi ko señ bi daan yone naa ko ko soti ko ni la ko daan def bu dikkee rek mu soti ci ko daan dugg ci beuti ba def ay picc fi ñu ne ko fal sa sikki sin baadu ki mu na mana wax leen ko sëñ bamba mo ne manako soti ko kat buma bu nak fu mu mu dugg fa rek moko fa duggal man duma ko genné la waxon waaw kon niñu gëna waktu wax toujours ne ñett yi ñett yi lu mata bayyi xel la ñukoy jëlaat suñu ak suñu tuba ndax ñu mëna ag bok moy lan pas passu Cheikh Ibrahima Fall ñàmbaaruk Cheikh abdullah ak yermane Sëñ salim ngir ko tek ko suñu kanam tek ko suñu digg buntu buñ bi ak jaayante affaire bi amul benn njariñ amul njariñ xasida yi moom xasida goj jàpp te bàyyi woo ko ilallaahi xaabidan rek bilaa xalwatin nag bilaa xalwatin ndax bu dee ma faatewul bisiri dégg nga li ci sëñ bi wax nee na bi ma ko bindee ba noppi bu ne bu doon doom ju juddu la yàlla ne ko maa koy tudd wa an ñu sammi woo taxaalaa la wax ma faatewul yàlla ne ko maa koy tudd maa koy joxu dégg kon bude lu melni jalbatul marahib turu tur wuyu na borom bude nur darin ku ne xam nañ bu musaana woo bu sama tere ba rek xam nañ ne nuuru lay wax dégg ben bu ci nek wakaana haqan laj ñu ko si ñëpp ne ko wakaana haqan de mom xana dañu bëggoon guñ ci wax mu ne muy ca la la mun na xalaa xaar fi nekk mu ne ñu ne ko waaw mu ne mun ak saxar la te lu ko way atanako nee na na ak saxaar la lu ko na ko ala xaar yi si kon qasida yep a qasida xasida te bayi woo rek mu yóbbu la fa kon nañu euh, euh température te nekkat ay mourid te bis bu set ñu japp ne ak guñ fu ñu waye fini ni bu dee fekke am nañ chat suñ chat moy ñu bari ñu japp ne ag nañ fañ jëm te jóguñ fi taxaw lolu bokk na ci ak ko gis jàkk ne ne nekkul ci dara ku nekkul ci li nga nek rek nga japp ne nekkul ci dara loolu baaxut nañu nañu nañu nañu gën a fexe boo xante ba dugg ci biir bayitu Sëñ Tuubaa woowu Sëñ Sëñ Saaliw mujjoon a wax yaa rabbi yee ci xal muridina maha fii nekkal xasin wasam lañ maha boole suñ bopp tey nëbbu leen ci ayib yi yéen soxna yi itam ngeen xam ne li yàlla digal góor moom la digal jigéen ndax bam ne innal muslimina ah tegu ca wal muminina de wal muslimaati la ca teg doo ko waxul muminina wal muminaati cheikh soxna tay mariam busa mi ngeen ne mom ngeen roy muy seen kay kenn ku nek ci yeen dem na ba ag ci ñeen fukki at amna ño xamne fi ne amna ñeen fukki at ñi nga doga a japp jàpp ne ñi nga doga a a dugg seen aduna nak fasiyene defante ci seen ñeen fukki at moo ne soxna jaaritullahi mariam busa de fanweeri at ak ñet la dund ci aduna mom ñet fanweeri at ak ñet genn ci nak fa fa fa fa fa ma adam baaxoo jaar bakar ak muy nek mu kalaf génn ca loola kon lum liggey lum liggey kon ci ñaat at la ko liggey yow nga ne moom ngay ray mom mu dem bu yagg ci fanweeri at yow nga xaar bu ñaan ñaar fukki at nak doo ko fas yéene nag wut yu bax ne da ngay defante bo demé ba nga xam nak woor na la léegi am yalla soxlaatu la nga doog a nag fas yéene nag wut sa der si teewul jógoo say tank baaxul waaye yaa ngi wax li nga bëgg wax waaw dañuy tam suñu bop ak jaamu yalla bu dee soxna jaara lañu roy soxna jaara ma réew busu mom day lolu ñu naan masna naa xargaalam di di liggéey ngir ngir ngir ngir lan nu ñu koy waxee sax euh, tangal kafe yi bëggal sëriñam lolu ñu bari dañ koy wax ta xamu ñu num démé ak gal wax dëgg yalla nees koy xaré di ci tangal ma di ci tàngal kafe tamat tamé nek fi kon amna lu taxone loolu ñu jox jigen juy dem kër li ñi woowee ak can keroog biñ ko ko joxee soxna asawal du ko jël tegaat ko ci loxom ne ko yaa ko moom waaye bu mu dugg sa gimiñ sàkku ci ngërëmu sa borom kër ba am ko ba mu demee ci la wax ko pël ne ko waxal waxal ma lu mu la jaral ci ay ci ci ay fan nga dégg ma nga dem ma ko jox soow ba ko ko jox di ko ko jox di ko ko jox ba fan ya mat mu ne ko liñ fi amoon ci xaalis jeex na kat te la ubbi gaa nag fekk fa sërëb dënk mu jël sël ba teg sël ba teg ko ci layu pël bi ne ko lu mu la jaral ci fan mu wax ko ñaata fan la mu ne ko jox ma ko ci soow mu koy sipp soow di ko togg laax di yit si moor di ko def saasu su ba fan yee ya jeexee mu indi jël marinière ba ca topp teg di def noonu ba takkaay yi mu jël takkaay yi di ca teg ba takkaay ya jeex léegi nag benn bis gaal gi gaalub dénk la mu togg ba sirit mu bëgg a togg mu bëgg a togg matt mi tooy ba mu ko togg mu mu dem jël gaal ga xar ko ngir amatu fa njariñ ndax yéree jeex na kon loolu ku ciy roy soxna jaara roy ko ci loolu boo ko suñ mor ne tégal ma sàkket yi ma ñëw it suñ nee na si yéen sot nee na ko ba soxna jaara téye fa mu téye boo ko suñ mor ne téye fa nee na waxuma la sax muy toqi wala laal fa mu téye la téye suñ mor di wër sàkket di wër ab xer par xiir wa suñ mor teggee noonu soxna jaara nek fa ba fajar bi suñu moor jëlee satalaam di waaj ci la ci la am lu yëngu mu ne ko kooku mu ne ko jaariyatullahi mu ne ana looy def li ana looy def fi mu tontu ko tontu bu bu yem da ko ne ya mané won teyel téyel ma te dikkaatoo ne ma bàyyi kon bu don ci ñun ñi bu fekkente ne yow sa borom kër moy la xaar ma fii ma ñew bu yexé nak rek bu la leen nga nga ko ba nga ma fi teyé ba légui ba ba légui ñewoo nangam nangam nangam loolu it nañ ci bàyyi xel kuy roy soxna jaar roy ko ci loolu ba ko suñ mor yónnee ndox mu dem wër wër amul ndox daa daa dina wuti wuti teen ba ba maagee gisu fa baag waaye bi mu nee seen xool ñaari bët yi jàkkaarloo ndox mi moo xam ne ndox lañ ko yónnee te ndox nga ne daa daa dama da wuti wuti wuti wuti teen ñu ne ba bi ko suñ mor yégee mu ne mu ne jaariyatullaahi bañ ko yor daa takkaayu ci bunt ba dëgër tey benn bi mu ne cëpp ci génn daa daa génn wuti wuti wuti suñ wuti kon soxna yi ku ci sa boroom kër jaral bakk sa bakkan na wax bu la jëralu sa bakkan nag kon boo feebaree ba mu la ba mu war laa faj bu ordonnance yu ñëwee amul xaalis muñul ko ba mu mën la ko jox kon nga royee ko soxna jaara kon am nañ ku ñu mën a roy am nañ ku ñu mën a roy nañ bàyyi xel bu baax a baax a baax ba suñ tubaab wutal nañu ay ay yu bari yuñ mën a yuñ mën a yuñ mën a jëfandiku dégg nga suñ bàyyi laa di suñ bottu yi boo gisee ko solo nga solo nga sa mel ah, kaw kirij koros mooy sañ si seen karaw ko bu seen si waa ko hum xajuun aw maam waaye dangay gis ku nekk Touba daggu kis kirij korosam wootu lu ko neex nekk ci jumaa ji ba nag man bëgg maa góndi loolu sotti boo bëggee góndi Touba dangay sol sa baylaat bu baax wootu sol nen gàdd sa jukki xasida dégg nga di jël sa guuree naan sa kafe naan jërëjëf Sëñ Tuubaa koo gis góndi ko waaw loolu nga war a def waaye bu fekkee kiris koros la moom ba nga ca sol mën naa bañ a set ba noppi it tubaab yi koy def ñoo ko dàq fuuf te nañu moytu ko solu yi mooy yi ñu wat gëstu naa ci ay gëstu am na ay watis yoo xam ne li muy firi xam xam nga kañ ko roy ca moom da nga gis mbër mu ko def maa nga gis ko ko def ak waykat bu ko def nga roy ko ca xam nga moom ci kam ko royee kooka lu lu lu mu ci jublu moom am na bu ñu def ñaari rëdd wërale ko xam nga loolu lu muy firi yàlla amul yow nga ne defal ma bi ba nopi dañ si buñ la waxee nga ne sant suñu wa am ñu ki bàyyi xel am na beneen boo ne sama xaj mo sama yaay ñoyem ci man loolu firi te lolu yu graw graw graw graw bu fekkante ne nag li wax subuha mënoo koo laa ñere da ngay bàyyi lu lu lu nga bàyyi ko te lolu ci lañ nek dañu wara a xel yoy yep te japp ci li te ñu gëna gorgol ci sakku ji xam-xam fofu lay mujjé ñi tollu ci jang nañ jima dem jang ba xam kan mooy suñ ñi ñu bañ leena nax nax yi ñi yi ñi wo gaay bari na lool bar na ñi joxe ay werd ñi naan dama lay yóbbu ci yalla yalla bo da wax kenn ñewul ci man bo demee ba ci yalla la wax ha ah, ay bo leer nga bi ñaari yoon nak gënt gis dara ñeen la ag nga tamam mi lay wax na la ag nga mum jiwul fi taxaw hmm nañ japp ci xasida yi suñ yi te bañ ko bolé dara nañ jàpp ci xasida yii lu dul xasida yi xasida yi la gën nañ ci jàpp bu dëgër te bañ ko booleeg dara suñ ko defee liñ bëgg àdduna ak alaaxira danañ ko am te wattandiku wattandiku itam ci biir xasida yi ñu bàyyi daaj bu ñu neex rek jàng ku la gën a fonk suñ ma sàmb moo la dàq jàng maa ko ku la gën a fonk suñ ma sàmb moo la dàq jàng waaye léeg-léeg da ngay gis daaj daaj boo xam ne doo ci yëg dara waaw doo ci yëg dara ci daaj bi waaw ndax lan yow gis bu mat kuréel goo xam ne gis bu mat bu bu mën mënoo koo taxawal dégg sëñ Ablaye Diop genn benn kii rek nga nañ ko nañ ko nañ ko répété gaaw te yow mukkaloo koo gis bu ci daajin wi nañ ko nañ ko rab léegi hmm? koo xam ne ba mu ca nekkee xamoo kañ la nga xëy xëy mu jékki-jékki fent dara rek. nga ne bu bu soo yàlla kaso rajab gaa ngi jub si boobu la de boobu la jël te yow way bu moko gut lol day dam ab day dam am jang tay bi ci dessine moy bahru yi ni ko sëñ bi waye ñuy waye nonu khasside yi léeg-léeg nga jël ak xasida waye ko no xamne mo bahru bi day nga xamne da nga taxañ a taxañ a bay bëgg a waaw da nga taxañ bay bëgg a dee te du tax ngay taxañ waaw lol yi mu ta bàyyi xel waaw luñu jang la dañ ko wara jangi ñi ngeen gis ñu man ko ba ñeen ci jëlee ko jang ba xam way lu tey yëpp loolu it ab denkan la bu ma ci doon dugalale rek ngi ñu bok ci jar ñun ñep lu ci way dégg tam ñox-ñoxi say xol ma ngi jéggul baax baax baax lu ci way dégg tam luñu mëna mën a jariñoo yàlla nañ suñ tubaab dimbali boole ñu jubal boole ñu ni melal na suñu tuba bëgg ko na mel yalla nañ mel noonu ci barkeb suñu tuba waaw bal na àq ñëpp yàlla nañ ñëpp balaaq yàlla ya la cheikh ibrahim daan ñaanal taalibe bu mu gërëm yalla nañ jekku ndigal ak adiya waaw murid bu nek loolu nga bëgg jekku ndigal ak adiya yalla nañ ko suñu tuba defal waaw ta ñu yok teg bokk ay murid ñu bokk waaw ko dàq rek ci sëñ bi la jëm kon nañu rafetal bu baax a baax baax a baax te ñu nang dogale yalla yi ki yalla tek ci kaw ñu nang ko ñu ko tek waaw loolu yëpp ñu ko tek waaw lu tax diw di am nangam te am ma ko lu tax diw di man nangam te man ma ko ñu yëpp xel ku koy def yang ne yaa ngi attaqué attaqué yàlla ak yàlla ndax ma amin dabatin fil ardi illa ala lahi rizquha waaw nañ ko bàyyi xel bu baax a baax lu tax diw di man nangam te mënuma ko tax diw di am nangam te amuma ko kenn du ko wax waaw lu am yéene ko ko te jàpp ci li nga am te doy coba ko boo ko defee Sëñ Tuubaa dimbali la te it ñu jàpp ci Sëñ Tuubaa te bañ ko boolee tus waaw buñ ko boolee dara Sëñ Tuubaa dong nga fi nekk leneen néew fi waaw loolu waaye mën a wóolu Sëñ Tuubaa bu ëllëgee dañ ko ànd ak wàcc ko ba noppi di wër sëñ bi seigne bi rek mata japp seigne bi rek mata mati mati mom euh dafa yomb lol seigne Tuubaa and ak mom dafa neex lol mooy ya ci jariño mom wa bis bu set muy gëna neex di jëm kanam kulliyat yi mu'jizatun te àqarat wa xayru xayraat nga day ko duqirat lañ gën a gurgurwaat te jàppaat dafa ko bolal dara ñoo ngi jéggul ñëpp di sant ñëpp di nuyu jànkati xasside yi fi nek yëpp seigne abdallah Diop ñu ngi lay siyar bu baax di la nuyu di la jox sa way di la ñaanal tam di la xamal ne sop sopé lañ bu wor wax ne dañ lay bégge bu baax baax jànkati xasside yëpp lañuy ñuy waye waaw yooyu am na loo xam ne su ko wax ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñaan ci barkeb suñ tubaa ku fi teew yàlla na suñ tubaa faj say aajo saahir na baat nan ku jógee fii rek soo xëyee suba yàlla nga tàmbalee gis fajug aajo goo xam ne xamoo fu ñu jógee barkeb si Abdou jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah